mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ci xibaar dossier Adji Sarr Ousmane Sonko bi nag ku jàpp ne day jeex yaa ngi nax sa bopp loolu nag ñenn si ñi nga xam ne rek ñoo di avocat yu Ousmane yi nekk ku ci mel ni maître Bamba Cissé ak ñi nga xam ne rek euh, ñooy layal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñoom nag dañoo bañ ba tëdd sa naaj wa di wax ne li nga xam ne mooy dossier bi daal lu jeex benn yoon nañu topp ñi nga xam ne rek ñoo amal bi lépp ki nga xam ne moo di Maham Diallo ginnaaw bi ñu yónnee woon li nga xam ne rek moo soxal bi la di jeex tàkk ci Sénégal avocat Sonko yi seen xel dafa tee li nga xam ne dañ di le bëgg a patam patame bi lépp dossier jàll ci leneen tax rek ñoom ñu déposé ab plainte ñeel ki nga xam ne moo di Mamour Diallo Adji Sarr ak ki nga xam ne moo di Sidi Ahmed Mbaye ak ku ñu wax fi Viviane ak keneen koo xam ne daal nee nañ moo doon dawal oto ba nga xam ne Adji Sarr ca la duggoon ñoom nag instant bi nag dañ leen porte plainte ñi nga xam ne ñoo di avocat Sonko yi nag dañoo bañ ba tëdd ca naaj wi rek bañ a jeexal bi lépp dossier maam nag buñ ko tënkee daal dossier bi daal di leen ci dugal génne wu leen ci voilà kon mbokk yi jox leen dig di jëbal leen incha allah 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal 5M TV senegal seen YouTube bu am solo abonnez-vous ci 5M TV Sénégal ndax ngay am ay vidéo yu am solo